asalaamaaleykum waa Sénégal daleen ak jàmm seen émission Jojo et ses marabouts ah, amati naa gan gan goo xam ni comme ni ma ko daan waxe rek ngir sénégalais yi la waaye laata ma koy présenté damay def comme ni ma ko daan defee di baalu àq. di baal ñëpp ak di ziyaar di wax ne ak dafa sew man ñemewuma ko kon képp ku nga xam ne amal naa la ak te yëguma ko maa ngi lay ñaan nga baal ma te xam ne baal naa ñëpp ak man tamit Sénégal gàcce ngalaama ñun suñu réew mii gàcce ngalaama ñun réewu jàmm La paix, rien que la un bien petit mot mais qui contient de choses. jàmm fu mu amul dara xaju fa jàmm fu mu amul développement du musa am kon nag ngalla jàmm ji nekk suñu réew nañ ko sauvegarder jàpp ko suñu fukki loxo ak juróom Afrique et ses Sénégal et ses le Sénégal et ses ci ñoom maam la woon ba ci ñun ñi di ay sët kon tey Jojo boo amee émission bu tudd Jojo et ses mara tegguwuma benn yoon yoon bi damay dekkal cosaan di dellu lu fi ñoom maam bàyyi woon kon nag gan gi maam tey dafa tombe sax ndax ku ne xam na ne mois de mars weeru jigéen ñi la ku ne xam ne man Jojo jigéen ñee sama xarit ndax nag bu fekkee jigéen la yàllaa ko njëkk a suturaal yàllaa ko njëkk a teral waxuma la ak ñun ñi du góor ñi te ku ne xam na ne derrière chaque grand homme il y toujours une grande dame et c'est la femme qui sait si bien mettre le voile de la discrétion sur nos erreurs ñun ñi di góor ñi kon nag soo amee gan goo xam ni jigéen la muy soxna Mariama si taalibi sëñ Babacar si bu mag bi damay kontaan si dalal ak jàmm ñëw nga sa kër càmmiñ ñëw nga sa kër góor ñëw nga sa kër fans comme ni nga ma ko waxee dangay dal ak jàmm nga nuyoo ak sénégalais ñu doog a dugg ci waxtaan wi jërëjëf bismillahi rahmaani rahim auzu billahi minash shaytaani rajim euh, jërëjëf euh, Zozo ndax damay rafetlu invitation bi di lay kontaane ndax man dama la yàgg bëgg dama la yàgg bëgg dama doon seetaan sa théâtre mm. ndax suñu liggéey bi dafa metti mm. dafa nekk milieu boo xam ne dafa metti ci góor waxuma la ci jigéen mm-hmm. te bu ñu xoolee jigéen ak faj day metti mm. saa yu ma stressé yoo mbala bu ma liggéey ba son yow laay seetaan ndeysaan barki Sëriñ Babacar Si mi sama yaakaar euh, dama la sopp dama la yàgg bëgg yàgg di lay seetaan alhamdulilah lépp loo xamante ne tawat loo nekk sama yaram yaa ko dindi ma wax la ah, ko tey sant yàlla ndaxte da nga daan toog liggéeyal nit mu metti lool ma la nga faj rab affaire day ñëwaat ci yow. Hmm. ma seetaan la li nekkoon ci yow yëpp daal li nekkoon ci man yëpp daal di soulager. kon nag maa la bëgg piir di lay ñaanal jàmm sutura di ñaan yàlla nga fi yàgg lool te wér ndaxte ne naa ragal pété day xañe wërsëg te maa la bëgg te duma ci daw lenn may nuyu nag sénégalais ak sénégalais yi mhm. ndaxte lu yàgg ci njaw doon njaw te ñoom mhm. ñoo ñu dooleel ñoom ñoo ma bëgg mhm. ñoom ñoo ma bëgg ñoo ma kàttanal ndax Jojo ku nekk ci at plus de dix ans. Mm. Eh, di ci def chiffre d'affaires sant yàlla. Mm-hmm. di ci it prouvé sant mm. yàlla mm. te ñoom ñoo ma dooleel amaanaa su fekkoon dama doon def émission di leen di woo te ñëwuñu mm. te it wanuma leen qualité kon dem nañ bu yàgg leen it loo nekk ren ba déwén continuer di koy def yaakaar naa ne sant yàlla nga ca ndax lépp lu may def rek yàlla dugal na ca loxoom ndaxte nee naa ñun fiñ dëkkoon fiñ nekkoon rek lañ ne toxawuñu mm-hmm. changé wuñ dëkkuwaay ndax li ñuy def dañ koo mën alhamdulilah ñu doon it ay taalibi sëñ Babacar jël wër di cheikh kon lépp lu ñuy def rek dañ koy teg ci sariya teg ko ci diine ñun defuñu dara yi loo xamante ne méngawul ak diine méngawul ak sariya kon sama soppe maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax di lay kontaane gëm li ngay wax gëm ne doxoo dara ci ay caaxaan moo waral nga toog fii tey ndax na kër gi ku dul ndaanaan doo fi dugg ku mën a nax ñeneen ñi ñun kenn mënu noo nax ku yàpp sénégalais yi ñun yàbuñu sénégalais yi bay invité koo xam ne du ndaanaan muy toog fii di wax naka si dul noonu ñun duñ liggéeyee noonu kon fees nga dellu sa place toog nga fi nga war a toog tey waaye nag ginnaaw émission bi guddul dañuy dugg rek ci waxtaan wi directement ndax lu ñu war a waxtaane dafa bari maa la xool seetlu la seetantal la lacce la enquête la ba sa koñ ba ci xarit ba ci say xarit yu ngay àndal guddeeg bëccëg wala ñu lay fréquenté ñu wax ma yaay kan ma woo la fii kon maa la woo ah waaye daa mel ne sama kër gi lii ay jinne dañ fee ñëw tey gis naa fi ay ndombo ay kook ay ay ay layu lu ne gis naa ko fi donc fu ñu ma njëkkee ak yow mooy ci seet seet da koy def lan mooy seet waaw Jojo dañuy sant yàlla sama soppe di julli si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa salaam ndax nee naa seet dañ koo doon te dañoo ñëw suñu ëttu kër maam fekk fa seet kon lu ñu doonu la kon boo ñu laajee ci milieu seet dañ ci sawar lool pour tontu la mhm. ndaxte ne naa seet mooy nit ki jaaxle nga wan ko yoon nit ki nga xam ne dafa gëlëm ba xamatul fu muy dem nga teg ko ci yoon mhm. loolooy seet nit ki nga xam mhm. dafa réer ak nit ki nga xamante ne maanaam dafa nekk ci àddinaam ñu koy yàqal yoonam nga seetal ko génne loo ko ay sarax mu génnee ay saraxam daal di daal di delluwaat mel ni meloon ndaxte nee naa seet li muy def ci nit moo bari ndaxte dafay mel nit ki na ma naan nga seetal ko li nekkoon ci moom daal di dañ hmm. bala nit ki xiif bëgg a lekk soxla ku ko jox mu lekk lool boo ko jox boo ko seetalee day mel ni comme yow hmm. nit ki nga xamante da nga jixaat daal man jixaat laa tuddee seet dëgg la ndaxte nit daf ma naan soxna Mariama depuis ñaari fan maa ngi lay woo di wax jooy ma xam ne kon la muy wax kon seet bi kon am na loo xamante ne da def ci nit day mel ne malaat bi feebar rek nga nga nga wax ko lii mooy sa feebar hmm. day xam ne lii mooy feebar mu topp traitement am kon looloy seet ah, léegi d'accord léegi mën nga maa wax yan xeetu seet ñoo am waaw seet yi am bari na. waaw ndaxte gis naa ne listixaar. am na am na. Mhm. seet ci latru. ci latru maanaam seet ci papier mara def ay tomb. waaw dañ ci seet. waaw loolu am na. seet ci ndox am na. seet ci suuf am na. Mhm. seet ci wàllu ramli am na kon façon seet yi bari na. ñun dañuy seet bay seet ci bale ak ndoxu potit yow da nga koy def waa dama koy def. waaw kay mhm. léegi nag da fi toogal place ñiy seet ñëpp. invité naa fi sa sa sa sa Salbe waaye convaincre ma ci li mu wax ci seet pettaaw parce que ba ma ko ko waxee nanguwul sax ne seet dafa araam convaincre na ma nag en tant que Selbé en tant que seetkat ndaanaan la mhm. waaye nu mu waroon défendre boppam ci yéen ñii di seet leneen lu dul alxuraan man damaa bëgg ngeen convaincre ma lan moo tax ngeen koy def parce que tey bu fekkente ne alxuraan dafa xaraamal seet wax fii nga toog ay ustaas ñëw nañ fi seetaan naa ko am na ustaas yu toog ne ma seet benn ci na la ci yàlla nangu muy listixaar yeneen yi ci des yëpp dafa xaraam am na keneen ku fi toog ne muy listixaar muy lu mënta doon seet dafa xaraam bu xaraamul woon boo demee tey ci sëñ Murtada Mbàkke mbaa nga dem ci euh, Tiwaawan dañ lay seetaan ban kilifa diina nga fi mos a dem mu seetal la amul tàllal sa loxo ma ñaanal la lay wax mhm. am na ko toog fi wax ko fi waaye daal li ñuy jàpp daal ba jàpp mooy li saxaar moo dagan yeneen yi daganul waaye xam nañ ne daal pettaaw ak suuf ak leket ak këll et tout nee nañu l'islam daf ko xaraamal dafa xaraam lan nga ma mën a wax ci loolu waaw Jojo wax laaj nga question bu am solo ndax nit ñi dañoo xaw a dañoo xaw a gëlëm ci wàllu seet hmm. kon ñun ñiy seet kay dinañ leen war a gin hmm. mais seet ci pettaaw dafa xaraam waaw mais leneen lu méngawul ak pettaaw boo ko seetee dagan na seet ci ndox dagan na ndax da ngay tiim ndox bi mu mel ni image nit ki muy ñëw ci yow kon loolu mbirum yàlla la uh-huh. waaw ngay seet ci wàllu ram li mm. boo defee tomb da lay indil chiffre nit ki nga xaw li mooy chiffre am lii mooy saraxam te bu ko defee gindeeku mm-hmm. kon ñiy wax seet dafa haram amaanaa alxuraan bind na ko ndax nee seet ci listixaar dagan na mm-hmm. te ñun dañuy seet ci wàllu ram li di seet ci listixaar kon ñun buñ ne seet dafa haram te alxuraan bi wane na li listixaar araamul kon ba tey problème day posé waat mais pettaaw dafa xaram man dama ci doon seet mais dama ko bàyyi mhm. ndax wax naa la léegi dama jël wér di Cheikh Ahmed Tidiane te mhm. méngoowul ak seet ci pettaaw te dem naa ba ci sama sëriñ laaj mu ne ma seet araamul ci li ngay yëngatu waaw man sama sëriñ la ko wax waaw fi ma joxe sama njébbal waaw moo ma bu fekkee da ngay seet ci loo xamante ne méngoowul ak pettaaw seetoo ci pettaaw ma ne ko déedéet seetoo ci xottu gerte ma ne ko dama ko daan seet mu ne ma bàyyi ko dema ma seetal ci suuf dee ma seetal ci ndox ak wàllu ram li te dama ci seet kon yow. sa sëriñ moo la jox ndigal. moo ma jox ndigal waaw. pettaaw bi daal moo xaraam. ak mhm, ak mais yeneen si xam nga fii ngay waxee ci télé ngay waxee nag. dëgg la loolu tax ma am fi toog ko. kay parce que après dina am yeneen invité yu mhm, mhm. boo fi waxee loo xam ne ànduñ na dañ ne la soxna soxna soxna Mariama mi fi ñëwoon la mu wax abul. moo tax may bëgg rek ngay wax loo xam ni. dañ ko dañ ko mën a défendre bu fa keneen ñëwee. nangu nga rek pettaaw. moo xaraam dafa xaraam waaye yeneen yu ci des yëpp dagan na waaw ndax foo xam ne boo fa demee yàlla suñ borom nee na boo demee ci pettaawkat ñeen fukki guddi boo jullee du koy du ko nangu ko loolu kon xaraam na dafa xaraam mais am na ñeneen ñu naan ñu lii dafa xaraam yeneen yi ndox meeg mhm. gerte yeeg li am na ñuy dafa xaraam ndox mi li tax nit di ci seet ba mën a gis soxlay nit ki te yow yow da day ne comme loo xamante ne dañ la koy dañ la koy dee ah. kon loolu buñ ne xaraam na yàlla ñu ko jox ah. kon bu ñu dofloo doy na waar daf doy na waar ndax xool ci wàllu ki di xam soxlay jaam bi waaw ci wàllu ram li kon Jojo loolu yàllaa ko maye waaw léegi léegi waaw d'accord mais mhm. mais boo tiimee ndox nii lan la dafa am looy tari pour li nga pour ngay gis wala day ñëw naturellement rek ci yow wala da nga ànd jinne ju lay dee wala nan la lan la lan seet bi lan la mhm. nga tiim ndox mbaa nga tiim suuf kurus dañ ci seet pourtant bëgg xam waaw mhm. lan lan nan nga koy xamee yow nan ngay xamee dëgg du neex ndax ànd nañu ay jinne mais lii ñëw ci ndox ñu xam nañ ne mayu yàlla la te man bu ma tiimee ndox day mel ni dafa am luy dee sama nopp wokkali wokkaleer te su ma ko waxee la un virgule ndax man damay seet live te yaakaar naa bu fekkee li ñu doon def ne antuwul mbala nekk lu dëgg kon duñ ci toog ay at di koy def te yàlla dañu ci may na kuñ seetal mu ne dëgg la kon loolu mayu yàlla la xam naa ne koo seetal dëgg la mhm. loolu xam naa ko mhm. nee naa la moo tax nga ñëw fii tey mhm. mais nan ngay gi lan moo lay gis loo loolu laa bëgg a laaj. waaw man dañoo dama ànd ak jinne te loolu may dee may wax. Ah. man dama am jëkkëru jinne moo may dee may wax. Eh? waaw. am nga jëkkër di normal nit nii. waaw waaw am naa normal am naa bu jinne. jinne bi du dóor ku normal ki di ah ki normal ki itam dafa am lu mu àndal ndax moom itam sëriñ la. ah waaw am ngeen njaboot. waaw benn <laughs> am na benn tuut tànk. benn ngeen am. yéex nañ ko am nag mais sant rek. ah jinne gi dafa xeex ba sonn. Mhm, dafa xeex ba sonn. sa waaj jàmbaar la. Mhm, jàmbaar la ndax man yor ma yombul dama dis gan moo tax yor ma yombul. Mhm. waa léegi lii laal la lii yii damaa bëgg ngeen se insérer mu wax ma wa ñeme naa ko war bu naa waaw bu la neexee nga téye abal ma ma amul benn amul dara lii. ah lan nañ ko. <laughs> léemu naa ko ba pare dara du la ci kii zozo <laughs> sama soppi. <laughs> damay ba jinne ji mer rek. Mm-hmm. ok d' accord mais lii carte la. waaw ci laay seet. da ngay seet ci carte. ndax dama am ay clients tubaab ak ñàkk nasaraan ci laa laa leen di xoolal ndax du ñu ay jullit. donc après il faut nga wax ma nan ngay seetee ci carte bi. waxuma nga seetal ma nag. waaw mais danga may wax nan ngay seetee ci carte yow. ci chiffre rek laa koy xoolee. Ah. nga teg foofu sa baaraam. d' accord mm-hmm. euh, euh, lii. waaw loolu ay fas la jigéen ju mënul am doom comme jigéen joo xam dafa sëy lu yàgg mënul am njaboot dafa taxaw boo ko takkalee bu am bu ma ko ko takkalee mu taxaw dinañ ñëw ci loolu lii aussi kon lii ay fajukaay la bokkul ak dara ceet waaw lii noonu yii ay fajukaay ay ba yoo xam ne ku nekk bitim réew bëgg ay affaire ak yooyu rek kon après nga won ma yii wax nga expliqué ko kon daal fii daal lu jëm ci xeetu seet mhm. laa mhm. moo fi jëm xeetu waaw loolu rek a moo tax rek laa fi indi zozo béjjén yi ay béjjénu luñu waaw béjjéen yi maanaam koo xam ne dafa ibbi place bëgg place bi dox ak koo xamante ne da ngay jaay te wajaarle ok dinañ ci mm-hmm. ñëw mm-hmm. mais béjjën yi béjjënu lan la waa béjjën yi am na béjjënu xar am na béjjënu bëy am na béjjënu nag d'accord mm-hmm. d'accord d'accord yii ma xool lii day mu neex de allahu akbar mais tamit amul benn danger déedéet amul danger déedéet lii pour seet la déedéet lool du pour seet loolu noonu dimb la doomu dimb pour ah. chauffeur yi nga xamante ne accident yi dafa bari ak xale yu góor yi yor cag-cag yi d'accord koy jox waaw loolu noonu ah. <laughs> ci samay xàmb laa ko jëlee zozo ku ñuy sang rek <laughs> amul danger ah, <laughs> ce que kon léegi mhm. booy doom seet ci carte mhm. koo xam ne nekku fi nan nga koy seetalee ci carte yi nan ngay def waa Zozo ni ñu xoolee ci carte yomb na mhm. ndaxte ne naa carte damay laajte sa tur ma am lu ma ci wax ndax am na yoo xam ne ay jat la bu ma amee lu ma ci wax après ma daal di teg sa chiffre mu tombeel ci la ñuy calcul daal di lay seetal mu génnee la résultat bi nga xam ne moom nga soxla ci nit ki te bi da ngay da ngay seet après digal ko saraxam mu dem waaw am na wala di sangat wala di nga seet joxe gàllaaj da ngay faj en même damay faj en même temps am na ñoo xam ne Zozo jarul nga leen di naan def leen ñëw leen ma sangat leen nit ki ci ni nga koy seetalee ci lay xam ndax gis na gis nga ko mbala gisoo ko mm. ndaxte nit ki li ngay yor bu fekkente ne qualité la da koy doy mu ñëw mu ñàkk ko doy mu toog na am na ñoo xam ne jarul ñuy sangatu jarul def ay bagage ndaxte da nga leen di seetal gis leen ne génne leen sarax bi balee trois jours ñu génne ko gis résultat d'accord mm-hmm. da ngaa am jinne mm-hmm. jinne ak rab benn la wala du benn jinne ak rab ñoo bokki maam mais du benn ah. mm. jinne ëpp doole rab waaw moo ëpp doole rab. ok kon yow rab bu nit bu amee rab. boo ko xoolee seetal ko di nga gis ne kii am na rab. waaw nit bu amee rab bu ma ko téyee rek dañ naan ma lii fii la rab bi nekk ak lii la koy def. su ma ko tegee loxo rek dañ naan ma rab bi fii la nekk ci moom ak lii la koy def boo ko defalee mu wër. ah yow koy wax. dañ ma koy wax waaw bu ma ko téyee rek dafa am. kon da ngay dama koy faj. ba mu génn ba bàyyi nit ki. ba bàyyi nit ki te du yàgg sax. dama bàyyi nit ki dama lay ah? jox ay sangat nga sangoo ko samay xàmb ma suur la nga dem waaw d'accord d'accord mais mais léegi rab la moo tax muy dugg doomu adama yi waaw Jojo comme yow mii nga xam ne yow jinne dugg na la lan la lan la lan moo tax mu dugg la lan waaw li tax rab di dugg nit ñi nit ñi léegi seen comportement ak seen façon solin ak seen façon heure bi ñuy génn loolu tax rab léegi dugg ñëpp daanaka looloo tax rab bi dugg la woon kon yow kan man déedéet loolu taxul rab bi dugg ma ndax rab bi ma nekkee xale ba tey la ma dugg ni ma nekkee xale ba tey waaw kon daal à travers comportement yi loolu moo tax daal rab yi di dugg doomu aadama nu ñu leen neexee nii waaw ndax xale jigéen ñi am na ñoo xam ne dañoo bët am na ñoo xam ne ni ñuy solo baaxul am na ñoo xam ne fu leen neex la ñuy lekkee lu leen neex la ñuy sol looloo tax rab dalay yomb ba dugg ndax dalay sopp waaw ah, mais am na ñu nga xam tamit rab da leen dugg rek parce que dañoo rafet wala naturellement quoi. bien xam naa yow moom rafet tax rab bi dugg la yow. ndeysaan yow bii <laughs> kaar macha allah. ah kaar macha allah nga baal ma rek xam naa ne. Ah, mm-hmm. ah borom borom am nga borom kër waaye tamit teewul ñun ñu wax suñu suñu xalaat. dëgg la looloo tax yow rab bi dugg la wala rab bu nekkoon say maam la parce que am na ñu nga xam ne souvent nee nañ ma ay xàmb la ñuy am. Mm-hmm. maam yi bàyyi leen ko fi xàmb yi ñëw toxu ci doom yi toxu ci sët yi. Mm-hmm. lan la man sama maam moo yoroon ay xàmb léegi demul ci ay doomam ci man mii la ñëw man mii sëtam ah. damaa gën a tuuti ci ay sëtam mais ci man la ñëw ndax dama ko daan gént lu bari taxaw ma ko ma ko daan gis ci gént lu bari mu naan ma jëlal lii soo ko jëlee noppaliku boo ko jëlul ma dofloo la te ba ma dofloowee ba ma fajoo ba wér dama dem foofu ñu ne ma moom mu lay tax ñu bàyyi la dangaa dofoon waaw tuur naa def naa lu ne mais wéru ma dof bi na la dikkee dama jékki-jékki rek mel ni comme dafam am luy taxaw sama kanam am luy dox sama yaram fu ma sama yaay yóbbu ñu ne ko kii dafa am lu mu àndal sama yaay ni kii amul lu muy àndal ndax ñun lii bokkul ci ñun waaw bi ñu joxee tegtal sama ëttu kër maam mbooro bi ma fa demee na ci lañ ne lii la fi sa bàyyi te lii la la dénk bu fekkee jël nga ko nga defee ko ni ko ni dina la may jàmm te boobu léegi 2000 2000 2013 ba tey. waaw ma ko defee la ma bàyyi. amatoo benn crise folie. crise amatuma benn crise. bi nga jëlee lenge yi daal commencé def li mu lay sant. Mm-hmm. kon yow fu mu mën naa ne yow da ngaa dépendre ci rab kon moo lay conditionné. non conditionné wu ma ndax dem nañ ba nga xamante ne xam naa li mu bëgg ma koy def te teewul dinaa dund sama dund te yàqalatuma dara. lan la bëgg moom. Euh, ma koy génneel ay sarax te it may faj jaami yàlla yi di koy jaamoo yàlla. mais mais mais sarax yi nga koy génne parce que souvent nee nañu rab saraxu soow lay laaj wala sareetu deret wala te loolu dafa xaraam tamit. Mhm. ba yaa ngi ci bàyyi xel wala rab yi du du rab yëppay laaj deret wala soow. wala non non am na rab yoo xamante ne ay patron dañuy laaj lu cher nga génne ay centaine de basin. wala nga génne ay centre de piste wala nga génne ay parfum wala nga génne ah, ay jàllaabi wala dañoo fuuy de dañoo fuuy ñooñu ay rab yu fuuy <laughs> ñooñu yee na ma yàlla baal ay borom kenn yooyu la ñuy laaj ndax dañuy laaj yoo xamante ne da koy génne am jàmm ay cuuraay yu cher mm-hmm. parfum yu cher yooyu la ay rab bëgg da dañoo bëgg lu baax comme nit ki d'accord mm-hmm. kon tey euh, euh, impuissance mm-hmm. maanaam góor gu nga xam ni dafa tële mën koo fajew damay faj impuissance te ñi ma ci faj ñëpp am naa ci résultat bi non impuissance boo xam ne judduwaale la wala boo demee dafa dem ba ci digg bi mu dab la wala lan non judduwaale mënuma koo faj mais ki nga xam ne daf la dab moom boo ñëwee ñu fajala ko ci deux jours mu tàkkali koog yow mais rab day def loolu day da koy def bu baax nga yegg sa jabar gaaw a daanu waaw waaw da koy def waaye déet waay waaw waaw rab day def loolu mbala nga tiim jigéen rek yegg da koy def maar de taal yi da koy def yàlla ñu yàlla musal ci rabam bon amin amin li muy def bari na ba wala wala mu tëyee awra awra góor bi du mën du mënati dara. gis ko bëgg mbala koo xemmeem boo ko tiimee doo nekk góor rab da koy def. rab amul lu munul. te yow loolu seet nii yow di nga gis ne kii rab. bu ñëwee bu ma jàkkaarloo ne ko jàkk ba suñu ñeenti tasee ma ne ko lii ak di moo dal mu ni ma waaw ma ne ko lii laa koy fajee mu ne ma ay aywa bu ma ko fajalee mu deñ dootu soxlaatuma muy ñëw ndax wér na. impuissance beeg yëpp. lépp impuissance beeg rab beeg keneen ku leneen jàpp bu ma jàkkaarloo dama naan jàkk lii la ak fii la la dalee ak nii la la dalee rek yàlla may nañu loolu. yow daan nga dem ci tele yi. Euh, daan naa dem ci tele yi mais bariwul. mais dafa war a bari. Mm-hmm, dafa bariwul xam nga xam nga xam nga mm-hmm. yéen. Mm-hmm. ngeen am mission bu doy waar. mission bu ngeen am parce que dégg naa sax nga am xam-xam jàngale ko sax bés boo génnee àdduna dalay jëriñ fa nga nekk. nga am xam-xam tamit jaamu ci yàlla tamit. da ci am ay tayaaba bu baax. tey góor ngóor a tax ñu naan góor kon góor boo dee ba sa ngóor dem yow nga fexe ba mu récupéré waat ngóoram mais yow danga ngaa war di gën télé bi ñun ñu xam fan ngay nekk di la mën a fekk si ngay mën a dimbali doomu aadama yi. ndeysaan mhm, parce que léegi léegi ne nga ma jigéen ju ok jigéen bu mënul ëmb aussi da nga da koy ñaan mu am doom. dama lay faj dama lay faj. waaw mais xaaral waaw mais d' accord mais tey bu fekkente ne xam nga am na tey jigéen yu nga xam nu ñu am doom. parce que euh, rab boo leen tëyee. Mm-hmm. d'accord daa nga mën ko faj. Mm-hmm. mais jigéen bu xam ne mun am doom parce que dafa feebar ah fibro wala yeneen ak yeneen yeneen ak loolu yëpp da koy faj. fibro dama koy seeyal Jojo boo ko amee dafa am ay tee ma lay jox yoo xam da nga koy naan mu seey jeex danga koy tuur ndox ba mu jeex mala nga indisposé mu ànd ak moom dama koy faj. Ah. koo xam ne kist da koo jàpp dama koy faj jarul ñu lay opéré boo ko weddee bu nit demee bañ bëgg bu ñëwee ma faj ko ci gratuite. nga ne bu nit demee bañ koy waaj a opéré opéré bu ñëwee ma faj ko mu daal di seey mu tàkkali ko moom mais am na ñoo xam ne seeni bos day màgg faaw nga dindi ko waxuma ñooñ nga xam ne da ngay dem bay saigné mbala fibrome bi dem na ba sax karaw kooku faaw mu dem hôpital ñu faj ko mais ki nga dem na bay réyal sa biir ngay sentir règle yi normal atul trompe yi di bousé dañ koy faj bu ma fajal la ko léegi ndomb bi lan la bii nga wax nii bu ko takkee rek day am doom déedéet fas bi bi bu ko takk rek day am doom ah? waa moo xool fas bi waaw fas bi façon la Euh, bii nii jigéen joo xamante ne kiiwul bu ko takkee day am doom bii nag tilimul la tudd ku mënul am jëkkër buñ ko ko takkalee bala muy tilim nga am jëkkër maa ko wax. balaa muy. am tilim nga am jëkkër. luy tilim. balay fas bi di tilim nga am jëkkër. <laughs> ay waay doo Samba Saliou xaaral maa ngi ñëw ci sa question boobu te laa doom ñëw gars ñu may dee fi neex. <laughs> bii ku munta am doom. bu ko ma ko ko takkalee maa koy takkal nag waaw ak foo mën di nekk da ngay ñëw ñu takkal la ko boo ko takkee boo weer ba jotee nga jël te boo jëlee dama lay takkal loo xam ne doo avorté booy am doom kenn la opéré tamit nay leer ndax fii lañ ko waxee ok ah nga la tudd fas bi tilimul tilimul la tudd jigéen boo ko takkal ku mënta doon balaa moo am jëkkër nga am jëkkër waaw mhm, nga am jëkkër jàmbat leen nag mu ngi ndomb bi ko ko takk góor bu ko maa ngi ñëw ci biir na ñëw ci biir ba pare balaa ngaa ñëw ci ndombali <laughs> nga ne bii jigéen boo ko takkal mhm. bala muy tilim nga am jëkkër lii kon du mat 15 jours parce que ay 15 jours dana tilim sa non non du mat allahu rabin balaa oh, muy tilim mu am jëkkër am na ñoo xam ne dañuy dàqaat tamit nay leer waaw mais bu fekkee dàqe woo di am jëkkër bala muy tilim góor bu bëgg a am jabar góor bu bëgg a am jabar ndomba lañ lay jox boo ko takkee ndax góor ñi dañoo bari rab te seen rab daa soxor bokkul ak bii tamit déedéet bokkul di déedéet ndomba laa lay jox nga takk ko ndax nga mën a am soxna zozo ma mën am jabar waaw ok léegi <laughs> maa ngi doog a am gan kontaan naa trop nga ne lii lu waaw <laughs> ndomba bi jàmbat leen ah? foo ko takk bu la neexee jàmmaarloog dëmm du la mënal dara bu la neexee jàmmaarloog saytaane du la mën jàmbat leen daal la tudd ja jàmbat leen nañ la jàmbatee nu ne mais dara du la dugg du paaka du rab du seytaane du dëmm du nit ku bon. li karaw lan la. <laughs> karaw muus la. karaw muus bu ñuul. muus bu ñuul. waaw. Saliou ne lan. Mhm. karaw muus bu ñuul. moo nekk ni waaw. nga kii boo ko takkee. jàmbat leen dugal fu ne defal lu ne. lu ne def ko. ñu lay jàmbat mi duñ la mënal dara. du paaka du fegal du. jaar dara dara lañ la dul mënal Jojo dara. ñeent bopp yëpp ngay tëj juróom ñett ñett yëpp. déedéet bu fekkee da ngaa nar a def dégâts tëjal juróom yëpp bu fekkee ñett yi bu fekkente naroo def dégâts takkal benn bi rek ñu di lay jàmbat duñ la mënal dara bët saytaane làmmiñ ak nit ku bon ak saay-saay dara duñ la ko mënal dagam neex na rabbi sama waaj. soo naree def dégâts nag nga tëj lépp. nga tëj lépp bu neexee yàll dañ lay jàmbat mais du la féete ginnaaw. ah. bii da ah Sadio génn leen ci kii sama gan la bàyyi leen téye gi ngeen may téye ah kii sama gan la waay ndomb li tegal ma ko a en attendant beneen ndomb bi lan la. waaw beneen ndomb bi pour ñi nga xam dañuy xëcc ndomba tànk ndax nit ñi dañoo bëgg ndomba tànk. ma xool nga xamante ne bii deru bay lañ ko ëwee am na ñoo xam ne dañuy bëgg doon. deru bay coow dina la topp de. waaw ndax bayre bay mais ànd naag kaaraange ànd naag muslaay ki nga xam ne dafay xëcc ndomba tànk moo xam ministre la moo xam muy xëcc pour nekk euh, adjudant bala colonel bala commandant yaa xam daal looy xëccu ci ndomba tànk bu ñu la ko takkalee par force bu ko fukk doon xëccoo yaa koy jël. Mhm. deru bay nga ko defee. deru bëy lañ ko ëwee deru bay bu xonq bu marron. mais mais lii am na alxuraan ci biir. am na alxuraan am na alxuraan am na sunguf am na poudre fetel. am pettaaw. am na poudre fetel tamit en même temps waa. après di nga ma wax njëg yi war naa seer de xalaat. <laughs> déedéet zozo ñun lépp lu ñuy def dañ ciy def dugal xéewal. wala doo wax bi. non jarul ñu wax prix bi ki nga xam ne bëgg na ko bu jàkkaarloo ndax am na ñoo xam ne da nga leen di wax sax kii dañuy koy tëj tibit waaw bu fekkente ne ndomba tànk nga war a jàmmaaloog sa ay soppeek say noonu da nga koy tëj dem jàkkaarloog ñoom ñëpp naan pat même bu fekkoon dañ ko doon xëccoo ñëpp ay sedd jox la victoire ah, kii te nga jox bi sonk wala Macky Sall dañ ko soxla de <laughs> yéen ñëw ci loolu mhm. béjjën yi waaw béjjën yi nag euh, ki nga xamante ne day jaay mu tëw a jar ak ki nga xam ne dafa ibbi bi tam du dégg jaay ma jaay ma bi bu ko wekkee ci place ba day jaral ki nga xamante ne amul bayre amoo soppe nga def ko sa saak foo tourné nit ñi dañ lay topp oh. am na ñoo xam ne amuñu soppe amuñu bayre foo dugg da ngay fay dëgg la da ngay fay kenn du la bëgg kenn du la sopp am na ñoo xam ne fu ñu dugg nag yëngal dëkk ba daal di wane ginnaaw bàyyi fa réer lekk mhm. bàyyi coow la waaw ah, looloo tax ndoom ba kii bi jóg béjjanti léegi li nga jëlee lan la xam li nga jëlee ci xàmb bi waaw li ma jëlee ci xàmb bi dafa am koo xamante ne fa laa sax doon ko faj lii xam nga dañ ci faj kortu xettaxu buy bii dafa am koo xam ne dañ ko sànni kortu moom laa demoon faj ji léegi ma faj ko mu dese benn waa ma indi ko ndaxte lii dañ koy lakk am luñ ko booleel daal di koy def sotti ko ci góom gi nga xam ne dafa am góomu robaale ak ah? ki nga xam dañ góomu robaale ak ki nga xam dañ ko sànni korto ñu ko ko defalee mu wér ndegam neex na yàlla ah waa léegi ndono la quoi nga ne ndono la xam-xam bi waaw dama ko doon sama maam sama côté yaay sama maam bu góor la non yow faj wala jinn ji mooy man en fait c'est mm. waaw waaw parce que li ngay wax ne yow da nga koy lijjanti yëpp ci réew mi ak at mii nga am nii mm-hmm. yow la wala yaa mag say at nii waaw man maa mag samay at Zozo ndax ñi ma doonu fekkuma leen fi maam samay at ndaxte samay maam ñoo fi bàyyi xam bi ñu jox ma ko te li ma àndal moo ma yokk fit <laughs> may faj <laughs> macha allah. xam nga xam nga am na benn xale bu ma xamoon du wax turam damaa jékki ñu ñëw ne ma yow doo dem ci diw seetal la ma ne leen da ngeen a que maa ko xamoon naa ne nag am na lu mu àndal parce que parfois da doom daanu ay ay ay ay affaire ay affaire yu yu garaaw sax ma leen yéen da ngeen a yabaate kii dafa mën a seet maa ko yar quoi léegi pour tëñal ko ma ne waa léegi seetal ma ma ne man nga bëgg ma seetal la wala wala Ibrahima nga bëgg ma seetal la ma ne kuy Ibrahima mu ne ma mooy ki ma ne ko dama Ibrahima seetal giñ naa ko ci alxuraan bis boobu ah ku xam Modou pousse pousse na ko wooti ni ma téléphone laaj laaj la ma génn ci néeg ba keroog maanaam kon tey xale boobu tey jinn ji mu àndaloon muy Ibrahima moomu moo koy doom defal yenn seet yu extraordinaire wala yenn yi moo tax ma lay laaj yow ndax yow yaay faj walla wala jinn bi moo ne sa ginnaaw wala lan waaw Jojo euh, man dafa am lu ñu ma loo ci seet ndax jinn ji ma àndal moo naan ma defee lii waxee lii mais boo dépassé say borno rek dalay sonal dalay feebarloo Ah, da lay feebarloo seen affaire yi kër teg na torop seen lay feebarloo te danaan la fii laa bëgg nga yem ko soo xëyee diw dina ñëw ci yow diw dina ñëw ci yow mais bu ñëwee lii ak lii ma koy faj bu ci nekk daf ma koy tegal fi mu war a tegu waaw moom boo la koy tegal da ngay gis mu teg ko damay yeew gis mu teg ko zozo jinne boo koy neexal loo bëgg mu defal la ko ñett a na a fort jinne waaw mais yow yow mënoo yow mënoo ànd yow mënoo ànd ak sa saako koot yow est doo yenn saa yi départ nag dañoo non su ma jékki mais nga yeewu suba gis ñu tegal la yow ku la ko tegal fekk ko ba la koy tegal mm-hmm. gisuloo ko mm-hmm. da dem ba tàmm ko ndax da xam ne lii dafa bokk ci man nga nangu ko lool boo nangoo rek mu may la jàmm mais soo bañee mu sonal la waaw uh-huh. ah, boo nangoo mu may la jàmm nga bañ mu sonal la zozo mm-hmm. ok léegi kon ay ay ay côté euh, ay côté hémorroïde ay ay ay ballonnement yu sonal doomu aadama yi ah ay yooyu mën nga ci dara. waa AVC dañ koy faj ndaxte fi ma ko fi ñu ma joxee xam-xam boobu sama papa dafa mosoon AVC. waaw mi koy ñu koy yóbbu fu ne ma ko yóbbu fu ne fu ma dem ñu faj ko mais du wér. ma tëdd ba guddi di sama li ma àndal ni ma def ko lii defee ko lii boo ko defee lii mu ne mu ne ma du jóg du wér sa papa app bi lay am day dee mais lii boo ko defalee dina tane mais du wér. mu ne ma képp ku am AVC dee ko fajee lii mbala nga jox nit fas bii am na fas boo xam ne ku ñu ko jox doo daanu AVC. boo am tension dootu la daaneel bu fekkee ku tension di jàpp rek zozo wallahi boo ma woowee bu ma la joxee samay fas boo ko takkee doo AVC mukk jamais. mais bo léegi ah man li nga wax amal na ma solo démb. Mhm. invité naa fi ndaanaan lu mag. Mhm. ndax dama am xarit bu nekk Las Vegas Amérique. Mhm. bu am AVC jantal la te sama gar sama grand la. bi ma ko laajee ndax mën ngaa nekk fii Sénégal ko daf na ma déedéet. pour ma faj ko day ñëw ba fi ma nekk ndax dafa am fi ma ko war a yóbbu fa laay mën a fajee AVC bi yow tey nit mën na nekk Amérique wala nekk France wala nekk fu mënta doon wax la dafa AVC nga faj fii nga toog senegal dama naan la wutal ma lii nga wut ko nga wut ko ma am lu ma la yónnee nga boole koog loolu daal ndax garab boo koy jox nit faaw mu wut ci dara même bu fekkee benn xob dina ko wut teg ko ci wetam. waaw nga jox ko say bos si bopp mu daal di koy dolli ku nekk ba Europe boo ma woowee ma fajala AVC. waaw man maa ko wax. di nga am test bu gaaw nii sax yow man maa lay testé rek. testé ma léegi fii ma toog Zozo daw ma leen ndax li may def dama ko mën <laughs> dama may def. <laughs> ok jamono juñ toll nii doy na waar. ndax sëriñ si bari nañ fi. ñi ñuy yóbbu vaar bari na fi. ñiy def révélation muy tombe di nekk tey dëggu bari na fi. di nga def ay révélation maanaam yow di nga mën a wax tey ñin ñi lii mooy am mois prochain wala lii mooy am année bi di ñëw wala làmb ji wala làmb ji parce que man ci li ma li ma dégg ci jinne jinne fàtte na li xew démb mm-hmm. waaye xam na la muy def suba bien sûr comme nit nu mu xamulee la muy def suba waaye xam na la mu def démb contraire bi la mm-hmm. bu fekkee da nga ànd ak jinne joo xam da bëgg lool muy sa deuxième xaw ma sa première jëkkër mooy première mooy première mooy première waaw kon ki gi toog fi wuju la déedéet moom laa njëkk a nopp jinne ji nga ko moom xam na ko waa ah, man de sama émission bi ku ne dina fi ñëw mhm. barki rasulaay kii de <laughs> wax léegi mhm. mën nga ma yow mën nga def di nga def ay révélation bu baax dama koy def 2012 euh, deuxième Macky Sall bi mu jël deuxième mandat man rek ci seetkat seul ñëpp may déglu man maa ne Macky day jël deuxième mandat te coow du ji bal du tàkk te kenn du sañ a wax bi ma ko defee bi émi kii bi jàllee sama kër daa fees dell uh-huh. benn seetkat ñemewu ko 2012 maa toog ne Macky Sall mooy jël deuxième mandat te bu ko jëlee coow di jëm ñëpp naan dëkk bi day tàkk man leen dëkk bi du tàkk dara du yëngu bal du tàkk ko fetel du jóg. non 2012 moo doon premier mandat bi. deuxième mandat bi laa wax. 2012. ma deuxième waaw deux 2000 kii la euh, est-ce que du 2000. waaw beneen bi 2012 la woon après ak 2000. 2012. waaw mu def mu def mu def sept ans. Mhm. waaw ba 2019. 2019. boobu la wala 2012 ba la. bi mooy deuxième mandat bi 2019 ak 2000. 2019 bi la 2019 bi 2019 yaa taxaw ne ma koy gagné waat. ma koy gagné. Ah, am na ñu ma ci jox lu bari. mais loolu xam nga Macky Sall jamono jooju am na doole. waaw loolu man mi sax sañoon naa taxaw ne ma koy gagné dafa mel ni Sénégal buy football ak. mais non <laughs> euh, Sénégal buy football ak euh, buy football ak euh, Mauritanie damay taxaw ne Sénégal day gagné Mauritanie. non demeewul noonu ndax ñëpp a toogoon ne Macky Sall day wàcc ndax boobu nit ñi mere nañ ko nag te ñëpp dañ doon jéem a xeex sëriñ sëpp génne Macky Sall day daanu man leen du daanu waaw coow li bëri woon na wax waaw waaw coow li dafa bëri woon pëccaxoo man leen Macky du mës a daanu deuxième mandat moo ko jël mais troisième mandat gisuma ko ci moom aha déedéet ci doom jëm de waaw loo ci xam gisuma ko gisuma ko xool nga gaay dee nañ la dee nañ ma gisuma ko <laughs> nee nañ la Macky du dem du gagné troisième mandat wala dina dem gisuma ko du dem day dem mais du day dem <laughs> gisuma ko ah non non bu ragal wax ji dañuy waxtaan day dem mais gisuma mu gagné ko ah day dem mais gisuma mu gagné troisième mandat gisuma ko. day dem troisième mandat. waaw day dem waaye dañ koy gagné. waaw waaw. soxna Mariama si taaliba sëñ Babacar si. Mhm. booy jëlal caméra bi nga goro plaal ma kii. <laughs> révélation bi soxna Mariama defal ma fii dina leer nañ bu baax Mariama nga ne lan nga xalaat troisième manda Macky Sall bi. troisième bi dina metti waaw dina tarte dina poser candidature mais Macky Sall du gagné troisième mandat. waaw bu neexee yàlla. deux mille deux mille vingt deux mille lan la. vingt quatre yàggatul bu paasee nga invité waan ma ma ñëw wax la maa ko waxoon sàcc baa ngi ragal du ko wax. Hmm? ah waa mais tey ku ñi fi ñëw taxaw naan ay gis na ñetti kees. ñett mooy troisième mandat lan nga mën a wax ci loolu waxul dëgg. non non waxul dëgg ku ko wax waxul dëgg ay dóor la. ah waaw. Selbé moo toog fii nga toog. mu ne moom gis na ñetti kees. <laughs> Mhm. yu yu nekk ci diggante loxo Macky Sall ak madame Faye Sall léegi yow nga ne loolu du dëgg. loolu du dëgg Selbé loolu bu ko waxee buzz lay wut mais Selbé waxul dëgg maa ko wax Selbé Ndom waxul dëgg Macky du am troisième mandat. émission baa ngi neex nag. déedéet Macky fu koy jëlee. waa léegi kan kan nga gis mooy doon donc après Macky Sall yow yow kan nga xalaat. bon ci xam-xam wala ci nit nii kan nga xalaat ne mooy war a mën a man daal Sonko daal nee naa ko na takku ba dëgër te xam ne dina bari ay adversaire dina bari. ay adversaire dina ko bari. ah kon gisoo sax Sonko yow. ma ne Sonko dina bari adversaire après loolu di nga ci wax mais dina bari adversaire. bu baax. ça c'est sûr dina bari adversaire moom loolu moom c'est sûr. dina bari adversaire après su jegesee damay ñëwaat. fii ah. <laughs> ñam naa ko mu neex amul fenn damay ñëwaat <laughs> da ñëwaat fii wax ma damay ñëwaat ne ma diway falu damay ñëwaat maa ngi ñëw fii wax la ko 2024 ndegam neex na yàlla yàggatul d'accord d'accord d'accord jërëjëf léegi à part loolu xam nga tey yéen da ngeen war a stabiliser réew dalal réew man gëw ma génn naan Sénégal accident dina fi am fii ak un mois damaa gëm nga ni ma accident dina am fii ak un mois sarax bi lii la na ko ñëpp def ba accident bi du am gëw ma ku naan deret dina tuuru ay xale dina dee nangam sàngam boo ko waxee jëlal ko euh, la koy defar nga ne sarax bi lii la lii la ba ba xale yi duñ mën a duñ mën duñ mën a kii. Sénégal yow fu ñu toll nii fii ak un an fii ak deux ans fan la nar a jëm ak yan sarax la sénégalais war di utiliser constamment pour jàmm mën a am ci réew mi. ndeysaan jërëjëfati sang bi da nga ñëw ci lu am solo. Hmm. xam nga tey jii bu ma ni dañuy génn oto day këppo yaa ngi xalaat sa njaboot. keneen nga xalaat njabootam kon loolu du wax ndax règle boo gis am na exception da ngay xool lii mooy saafara li nga ne ko lii kat dina am mais defal li nga wax mhm. at yi ñuy ñëw dañ doon wax deewu ndaw yi mais mag ñi fi ñu toll ñooy dem waaw te loolu sant yàlla la mag ñee ngi dem nag waaw atum mag ñi la kon waaw waaw waaw kon nag ñi doon wax ne ndaw yaa ngi dem kon nee naa réer nañu ndax mag ñee dem fi ñu toll ni fi toll boo xoolee dëj yi am yëpp lay doon 80 ans 90 jàpp 100 loolu sax baax na waaw baax na ndaxte wax dëgg fa ne yàlla ndaw mooy yor réew mm. mais at mii di ñëw maanam lu tàng dina am mais comme li nga wax dañuy génne ay sarax rek. lu tàngale la maanaam lan la. Euh, lu tàngale ci diggante Sonko ak Macky Sall. dina tàng moom. dina tàng jër nag dina tàng jër jër jër te ñoom seen i njaboot duñ ko fekkee ñun baadoo lay ñoo fi nar a toog nag nar koo dund ak ñoom mais ku mën a génnee sarax suukar nga génnee ko. suukar un kilo suukar un kilo sel un kilo euh, mil dugub. dugub ne ko ñëpp génnee suñ ko génnee ñëpp am jàmm ndax bu safaan di ñëw yow am nga droit aar say njaboot aar sa bopp. Hmm. Mm. aar sa njaboot aar sa bopp. defal nga ma révélation bu rëy. waaw ndax looloo ñu fi tax toog ay sénégalais lañu. zone wallaahi ndeysaan. Mm-hmm. nga ne kon fii ay jamono. Mm-hmm. Sénégal nar naa tàng. bu baax waaye ngir mu bañ a tàng. Mm-hmm. nañu génn sarax suukar. kilo suukar. kilo xorom. ak kilo dugub. ñu sarax ko n'importe kii ku jot jot jox ko mais bu mu doon sa njaboot te bu mu doon sa waa kër. d'accord koo war a dundal waroo koo sarax. Uh-huh. Mm. est làmb ji li ci faral di wax. dama ciy wax bu baax. ban combat nekk nii sax ci diggante bi combat bu rëy nga wax ma. ban combat da ah, ama ah, ah, euh, euh, roi des arènes bi. mi ngi ci bopp Modou Lo. ak booy ñaar taxaw na. lan nga gis ci loolu. booy Boy moom fi mu dafa taxaw. Modou na takkaat ngembam. Uh-huh. entourage am baaxul. na takkaan ngeen bam entourage am baaxul ndax fi mu toll nii booy ñaar daa bës bi déjà. waaw te téye na bës bi moom. da koo téye da koo poñe te itam mu droit des arènes mu ngi koy xeeñ. ñu kay koy. mu koy xeeñ ci kaw mu jóg ci boppam nag. Mm-hmm. mu ngi koy xeeñ mais bu mu naagu. <laughs> bu mu naagu. looy xool lii sa ket kon lan ngay xool lan. <laughs> wax leen ma ñaar saa laa defagum. wax leen ma ñaar saa laa defagum man sama gii <laughs> da dafa mel daa am looy looy xool ni dafa am ku lay wax. non sama waa ji la xam nga fu ñu dem ñooy ànd. ah nekkul na rek la nag de. ah non non non non. ne ko nag ne ko gaynde la man maa gaynde xam nga jinne ñamul gaynde. Mhm. ne ko man gaynde laa. gaynde nga moom waaw waaw kay mais dama ni. wax ma lu leer yow da nga gis booy ñaa da nga ko gis wala da nga ko ci analyse rek nga ko teg parce que tey li nga wax ni yomb na man mën naa taxaw tey ma ne non booy ñaa dina nekk roi des arènes non da koy nekk mën naa taxaw non mais loolu ci ci waxtaan la quoi mën naa taxaw ma ne Modou Lo day ñàkk affaire bi parce que ñun ñu bëri Sénégalais naan Modou Lo gëmatul làmb dernier combat mi ngi nii Modou Lo léegi ibaadu la ñun ñun lu ne ñu ngi koy wax mën naa ko jàppee foofu mais yow xam-xam nga teg ci li ngay wax wala analyse en général comme ni ko ñëpp di analyser la rek wala xam-xam la non zo xam-xam laay wax Mm. ndaxte lu ma toog gis ko laa te xam nga Sénégal tey ñoom. boo xasee ba yëg se bu la nit di wax doo ko dégg te fekk lim lay wax xëy ne boo ko dégloo dina la jariñ baa mu jariñ sa bopp mais Modou Lo man mooy sama supporter. mooy sa mbër mooy sama mbër. Mm-hmm. man supporteru Modou Lo la. Mm-hmm. dama ko bëgg mais fi mu toll nii wax dëgg fa ne yàlla làmb moom bu caaxaanee dootu ci dootu ci dootu ci prouvé ti dara. ah na. ah mu ngi jëm ci waaj a jeextal xam nga luy bëgg a jeex ak luy waaj a jeex ak lu jëm ci jeex bokkul mais mu ngi bëgg a jeexal jeexal Balla nag jeexal na. kan Balla. Ah. Balla moom <laughs> jeexal na daanaka moom. ci xam-xam wala ci ci lu ñu gis ci xam-xam laay wax loo xam ne dama ko dund. jo. waaw. est-ce que. donc benn ma dese. parce que waxtaan wi neex na. ah. teguma. ëmma seen. ëmma loo gis ci moom. <laughs> ëmb ak Balla war a de. <laughs> Euh, xaw ma ko woon fii laa ko xamee tey. ah xama woon ko mbaa boobu ne am na wala amul. wallaay xaw ma ko. d' accord xaw ma ko woon. Mhm. maintenant damay duggaat tuuti ci politique bi. Mhm. parce que waxtaan dafa neex lool. Mhm. Euh, Sonko. Aji Saaxo. coow li bëri na ñooñu lëmbe nañ réew mi de. te ba léegi lu ñu doon wax rek coow la fa amoon daaw ba léegi xamaguñ verdict ñii ngi naan lii ñii ngi naan laa Sonko dana dem kaso wala du dem kaso Sonko maam bay Mbaye Niang wala yow da ngaa gis Sonko ci pale ba wala Sonko ci rëbës yow fan nga gis Sonko yow mii gis lu ñëwagul te yàlla may la ko. jërëjëfati da nga ñëw ci question boo xamante ndax Sonko mu ngi ci danger te it waa gouvernement bi ñu ngi wut nu ñu koy pëttaxale pour dugal ko kaso Sonko bu amul sens faaw mu ñam kaso. bu fekkente ne day xëcc pouvoir bi faaw mu dugg kaso génnaat. yàlla may ko ko kaso bi mënul am victoire. jo bu fekkee benn fan sax dina ko dugg rëbës. Hmm? Mhm. ndax liñ ko def la deretu nit lañ jël. non boo xam ne bu dugg rëbës moom mënut a nekk 2024 président parce que li dal Karim Wade da ko dara dal ko. non day ñam génnaat de waaye de fi mu toll liñ koy pexeel Sonko dina ñam kaso dañ ko am luñ koy pexeel dañuy togg togg boo xam ne ñoragul moo tax mënaguñ koo yàq waaye bis bu ñoree Sonko day ñam kaso mais du fa yàgg. du fa yàgg. non non du fa yàgg dugg génnaat du fa yàgg. dañ koy pexeel nga wax. dañ koy pexeel waaw. léegi euh, euh, dafa war a lan la war a def rey deret nga wax. Hmm? dafa war a rey wala. non non dama dañoo jël deretu nit. dañu jël. deretu nit xaatimee ko bagage yi Sonko moo tax faaw mu ñam kaso. deretu nit. deretu nit. ay soxna Mariama kontaan naa. jàmbaar nga góor baax na jigéen baax na boo fi jógee nii léegi beneen gan gu mag laa am jigéen na yow lii dafa baax ñaari loxo mooy takk ceinture waaye ñaari loxoy takk sër jigéen yàgg naa jàmbaar dañuy doog jël jigéen ñi rek léegi di leen def ci armée bi wala di leen def ci ci ci ci ci ci ci euh, assemblée yi wala ci nguur yi waaye jigéen yàgg naa nekk armée mm-hmm. yàgg naa nekk assemblée yàgg naa nekk nguur mm, kajoor gii tey bu àggee fi mu àgg tey jigéen bokk na ci yaasin buubu keroog ba maajoor waree falu buur yaasin buuboo ko fal mm-hmm. ndax moo nangoo yoole boppam ngir maajoor falu kooku jàmbaar la Aline Sitoé Diatta la reine de la Casamance la Casa di Mansa jigéenu ndeer ya bañ leen naree toroxal la la ñu def daal seen bopp kon nag jot na tey jigéen ñi fees dell seen place mhm. li nga def nii bu njëkk ba jigéen sañu ko woon am sama xam-xam toog ci télé di ko wax mhm. ah na ngeen delloo njukkal Selbé nag parce que bokk na ci ñu ko njëkk def nag mhm. bokk na ci ñu njëkk a génn nag ci télé bi di wax ci jigéen kon tey boo doonee jigéen ñu nekk ci 8 mars nga ñëw toog ci émission bu mel nii di wax xam-xam goo xam ni góor bu fi tegoon tey du ko dindi gàcce nga laa ma yéen pour ñu tëj 8 mars la ñu nekk mois de mars lan nga ma mën a wax ci jigéen ñi taxawaayu jigéen ci réew mi lan nga ci gis ci xam-xam ak ci ak ci normal jërëjëf sama soppe laa lay woowee ndax li may wax maa la bëgg te daw ma ci lenn euh, zo jigéen yàgg na doon jàmbaar Euh, jigéen yàgg na doon doon koo xam ne kilifa kilifa la. Mhm. mais à chaque fois culture u Sénégal jigéen maanaam ca ginnaaw la ñuy wax. dëgg la ndaxte da ñaan góor muy jiitu jigéen topp mais defe naa loolu wa jeex na fi de. Mhm. ndax fu góor di taxaw di prouver di def chiffre d'affaires di def ay résultat jigéen ñaa ngi koy def surtout milieu bi ñu nekk. Mhm. métier bi ñu nekk yenn saa yi da ngay nekk góor mu nattu sa xam-xam. waaye yenn saa nga laal jigéen joo xam ne boo ko laalee laal laalaake. laal laalaake. ndax ñun ñii xëy na yàlla moo def jigéen ñi faj léegi am nañ fitu génn am nañ sañ-sañu génn mais bu njëkk ba amuñu woon sañ-sañu génn ndax li tax danga daan am complexe ne seetkat la mbala sa âge boo ko nattee ak li ngay faj am na ñoo xamante ne dañ ñaan léegi sëriñ si kaay ma wax la leen jigéen ñay prouvé di def résultat ndax mhm. dañoo ragal dem ci góor ñi nag ma wax la ko dañoo ragal dem ci sëriñ si góor si ndax jigéen si jonga ma di fa dem jigéen sax mooy loolu kon nag na jigéen ñi gën a takku mhm. bokk ndey bokk baay euh, di prouvé di def résultat man dama soxla résultat zo Hmm. liggéey bi boo ci nekkee faaw ngay wane résultat mooy tax nit ñi gëm la mooy tax ñu naw la mooy tax ñu respecté la dëgg la ndax nit ki li muy def ba ñu koy respecté moo koy def mais nit li ngay def ba ñu xepp la yow yaa koy def ndax tey jii mën nga jël encaissé sa benn 100000 ne encaissé naa 100000 dem tëdd ne la doo seetal nit ñi doo jo wane résultat hmm. ndax Sénégal yi moo mën a yëkkati nit ba mu jóg moo mën a daaneel nit kon jigéen ñi nañ takkuwaat fu góor di taxaw jigéen dafay taxaw te day prouver day wane résultat kon nag ñu mel ne yow yaa ñu dooleel yaa ñu kattanal bañ am fitu tey toog di wax ñëpp di ñuy xool te duñu piis wallaahi mais soo waxoon jigéen laa ni damay faj dañ lay xeeb wala ñu ne kii est-ce que mën na ak sa at hmm. mais yàlla may na lépp nag wallaahi na ñëpp xam ne yàlla amul lu mu bàyyi mm-hmm. lépp yàlla nattoon na ko te yàlla waxoon na ne jamono ñëw jigéen ñi faj góor ñi dem toogi te mooy jamono ji jigéen ñi ñu ngi faj ci lañ toll nii waaw jigéen ñaa ngi faj ñu ngi wane résultat jërëjëf jërëjëfati so say kàddu mm-hmm. leer na mm-hmm. na nga sant amaana am na lu yàlla def ci yow waaye euh, say waajur aussi yar nañ la si siraatul mustaqim communication ci éducation nit la nit boo amee éducation bu bon sa communication du baax mukk waaye boo amee éducation bu baax foo taxawee wax dañ naan daa jàng communication ndax man damaa compliqué man convaincre ma yombul lii ngay wax ni lenn lu ma fi convaincre dama naan la lii nga wax ni convaincre ma parce que wax naa la ko léegi neexaloo ma saxaloo wala joxuma ay millions mm-hmm. waaye sant yàlla mën na am de boo fa jógee di nga yokk mm-hmm. waaye gën ngaa dooleel tamit émission bi mm-hmm. dina tax ñeneen dinañ ñeme ñëw ndax ndax na nga waxee kon nag jërëjëf waaye nag li ma gën a ëppal solo dama koy wax toujours man aw ma jot damaa bëri liggéey bëgguma soo génnee fii suba ñu may woo Jojo soxna Mariama numéro am Jojo soxna ma déedéet yow yaay joxe numéro boo xam ne ca lañ lay jot yow numéro boo xam ne ku woo wax ak yow loolu sama sag lay doon man bu fekkee boo fi génnee ku la woo du la jot wala boo fi génnee seetal nit la ko seetal gisu ko mbaa nga faj nit nangam man laa joo ka ma invité woon kon maa leen lor dëgg la bu boobaa di nga ma amal àq rek man ko ma amal àq ko de da nga koy rëccu de la kon nag joxel numéro bu wóor. Mhm. numéro bu leer. Mhm. ñun ñu mën la faa fekk. Mhm. dëgg la so dañuy sant yàlla di julli si Seydina Mohamed. ak adresse bu ñu lay fekk. Uh-huh. dañuy sant yàlla di julli si Seydina Mohamed ndaxte nee naa yàgg ci liggéey nekk ci liggéey mën la ngay def ak ku gën. ndaxte am na lu ñu yàlla may te du ñu passé borne bi nga xam ne fa la ñu war a yam ndax fu nekk rek dañ fa am limite te Dakar fii rëy na mais amuñu fi sens interdit de. Hmm. Sénégal rëy na amuñu fi sens interdit fu ñu neex jaar lekk ñu dërëmu kenn tëdd di nelaw. Hmm. lekk ñu cent franc kenn te it bu ñu toogee fii. Hmm. bu leen neexee nañu commentaire ndax li ñuy def dañ ko mën ñeme ko xam bu baax fañ jëm xam bu baax fañ bëgg a yegg ndax pareeguñu zoo. ndax ni ngay noonu ngay jàngee xam-xam te di gën a jàng gën a mën a yaatal suñu xam-xam kon ñu ngi sant yàlla numéro bi 060 43 10. 77 wala 78. 77. 77. 060. waaw 43 10. 43 10. waaw beneen bi mooy 78. 78. 419. 419 ah. 419 41. 41 98. 98 waaw. ku ci woo yow lay jot. ku ci woo man ngay jot mbaa nga jot sama assistante rek. Euh, mais boo ko jotee dina yeggale yóbbante adresse bi fan la ne mbaa neewoo Tamba wala Vélingara déedéet ñaari adresse la am hmm. benn bi ñetti adresse la sax benn bi cité Bissab la beneen bi maa ngi Castor pharmacie Front de Terre waaw beneen bi maa ngi Diass Diass cité moo ne euh, nekk benn tali benn tali cité bisaab waaw benn tali daa bisaab daa bëri bisaab lañ fa doon bay mais léegi amatul bisaab ndeysaan ndeysaan bisaab waaw mu bisaab bi Diass waaw beneen bi Castor ca aéroport ba waaw ca aéroport bi jërëjëf soxna Mariama tàggool mhm. jërëjëf zo dañuy sant yàlla bu baax a baax mhm. di julli si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndaxte émission bi ñun seetkat yi ñun sëriñ si euh, ñun ñi xam ne bëgg nañ lu baax yàggoon nañ koo bëgg mi amuñu woon kuñ koy defal ndeysaan kon suñu jàkkaarloog sa jëmm ji mhm. nga ñu koy defal dañ ñoo dimbali ndaxte ki bëgg wax tax xamul fan la war a waxee mbala xamul na la war a waxee émission bi bi ma seetaanee nga ñu koy invité oustaz Modou Fall dama kontaan ndeysaan dëgg la ndax keroog da ngeen wax jam ñu ñun seetkat yi da ngeen ñoo ñaax tamit. dangeen ah. da ñoo ñaax. Mm-hmm. ndax lan mooy ñaax da nga commencé sa émission ni ko bu la neexee ma continuer tey émission bu la neexee ma dagg ko mun la bul koo dagg. waaw ndaxte am na ñoo xamante ñun dañuy faj nit ñi. dëgg la nit day feebar ñun la defal li nga def ko wér. kon yow yaa ngi dimbali askanu Sénégal mhm. yaa ngi jàppale doomi aadama yi ndax zo nit ñi dañoo réer nag te xamatuñu numéro bu baax bi te xamatuñu kan la ñu war a kon nag yow yaa ngi def loo xamante ne yal na la yàlla fay li ngay def nag xeet nga ko mais mhm. barki sëy dinaa Muhammad sallallahu alayhi wa yàlla dina la fay ba nga yëg ne yàlla dina la fay xoola diggante ren mars ñu ngi ci le 17 mars ba mars bopp zo barki alxuraan di nga yegg na yoon di yegg na yoon yàlla def na cat seexlu la yàlla jàppale la yàggal la fi soo buñ fa jógee nu ñuy sant suñu sëriñ sëñ Mbay Si sëñ Mbay Si Mansour mooy suñu xalifa général eh, ziar bi la ziar bi le douze la te ñoom la ñuy waajal buñ fa jógee dañu am kër Tiwaawan dañ koy tijji ji de ndax loolu lañu sëñ Babacar sant mm-hmm. waaw nee na ziar général am bii am nga kër Tiwaawan am naa fa kër ci liggéey bii ci li liggéey bi am naa ci teraanga bu ne nga ci liggéey bii sant naa ci yàlla bu baax kër a ca jas maa ko moom fa kasoor maa ko moom kon nag zoo amatul lu sant naa yàlla te liggéey bii nag sama waa ji jàppale na ma te teral na ma sëñ Babacar Si ndeysaan kon nag zo dañuy sant yàlla di ah, dégg naa boo ko woowee dëgg ñëw de ah sëñ ñoogu faama la douze na ñëpp dem Tiwaawan oustaz Modou Fall nee na bal bi la douze day takk nag na ñëpp daw dem wutali Tiwaawan ndax sama waaji ji sama waa ji na mat waay mais hmm. maam Babacar mat na waay kon nag zo le 12 na la fekk Tiwaawan maa la invité incha allah maa la invité dinaa ñëw euh, may sant nag sa caméraman yi waaw ndax ànd naag dal bu ma fi ñu may xool damay daw de <laughs> ah de <laughs> <laughs> maa ngi leen di sant maa ngi sant borom kër gi Njaga Nduur mm, di koy ñaanal jàmm di koy ñaanal xéewal yal na jàmmam yokk nduur baax la Njaga ndax lii buñ ko amee ba di koy def rek xëy na moo la jàppale wallaay moom la moom na yàlla defal leen jàmm nag borom kër ga ki ci kër ga kilifa gi waaw waaw kooku moom wax dëgg fa neex yàlla moom lépp moom la. waaw ndax bu dul woon moom. Mhm. du ma yor bébéem. mu may bàyyi may ñëw te bi ma ko waxee yow mu ne ma sa soppe kon moom ngay fekki kon ah, la bëgg moom mooy ñaareel moom moom mooy ñaareel kan waaw Moustapha Dieye mooy ah, bi nag doo ko gërëm non aaw bi moom son yi bu la tudd moom moom ah! moom la waaw jinne ji barki rasulilah son yi bu la tudd jullit la moo tax man la ay sijaada ak ay jeesne rek mbasin laa yóbbu ci daara te loolu la may imposé bu ma koy def am jàmm sooy bu waaw jullit la barke rasulilaay jërëjëf soxna Mariama <laughs> ah kon Sénégal lii jar naa sant yàlla am ñu mel nii Saliou yaa ngi wax sama noppee dégguma la am ñu mel ni ci réew mi sag la ci ñun lii rek mooy concept émission bi fu ci waay mënta nekk te yor sax xam-xam war a mën a jëriñ sénégalais yi dina la loqarte andi la nga toog fii doomu aadama li yàlla sàkk lu ne doomu aadama la ci gën a fonk kon tey man yàlla bu ma mayee kàttan may ma xel ba jox ma émission bu mel ni ma mën ci jaamu soxla doomu aadama yi dama naan alhamdulilahi rabil alamin soxna Mariama merci sa kàddu rafet na say wax leer na jub na tegu na ci siraatal mustaqim sell na lépp nag lu nga xam ne wax naa ko fi man te juum ngeen jéggal ma ndax doomu aadama kese la lépp lu ma fi jubit lu fi jubit na ngeen xam ne sunu borom la seen émission Jojo et ses maras ba beneen yoon incha allah